moom la daan dugg desi ba fa mujj dama ko wax fii ndax nit a ñëw àbb ko ko daal daan ne ko jaay naa ko te ku ko jege la ne ko jaay naa sa desi bi sëñ Saliou bokku ci te boobu nekkul xalifa bi Tuubaa de nit ñi ne ko nag kii Mbàkke nag dañoo war a wax ci moom yow oto bi moom ngay dugg mu jël ko jaay ko sëñ Saliou ne nañ ma ko wool mu woo ba mu ñëw mu ne ko maa ngi soo ko xam ne def nga ma ne ci sa bopp jàppe nga ma ni nga jàppe sa bopp maa ngi koy soog a xam ndax nit fekk àggul ci jël sa alal dem jaay ko te tagguwu la doonagu leen benn dangeen di wax rek hey sama gars yi ku ci jël seen alal dem jaay ko naan ko wëllëre fa la gi yem ah, leen ma rek ja àbb fi oto jàmbur jaay ko nga xool kooku nee na ci laa xamee ne sëñ Saliou mi fi mu nekk te boobu sëñ laa Lahad mu ne ko maa ngi te nee na boobu rus naa rus goo xam ne ndax neen dama am soxla dem ne benn waaye dama lay jaay oto bi oto bi Serigne Saliou te daf ko ko abboon sëñ Saliou lim def yëpp sëñ basum sëñ baa nee na ma sëñ Njaga mu ngi ma ko nettalee Suisse nee ma toog na ma ak sëñ Saliou ñuy waxtaan ma ak sëñ Abdoulaye ñuy waxtaan nee na ba naaju fekk ñu ko ndax suñu ablaat bu ma saan toog fenn kenn du ko fa fekk te woowu la mu ne ma Basiiru nañ toxu ci kër gee nee na ñu ne fay waxtaan ba mu yàgg am ku ñëw déy suñu ablaat mu ne ko nekkoon na agsi ndeke sëñ Saali ñëw moom xaarul ba doon sëñ Tuubaa mel ni mel de ndeke sëñ Saali way ñëw bi sëñ Saali sëñ Bass baari nee na maa ngi ko gis mu bokk benn keesu meew nee na boo gisee yëre yi mu sol ak ni mu mel man ne damaa yéemu sax mbaxane ni mu sol ak dàll yi mu sol xotti gi mu xotti ne sëñ Saliou ñëw suñu dàll yi fee nuyu sëñ Abdou Lahad daal daal di koy jox keesu meew bi nee ma ne sëñ Saliou daal moo dëddu àdduna ma keesu meew mënu ko yónnee rek ñu jaral ko mu gox ko ni topp naaj bi mu dugg lay kii daal jaaxal na ma nee na moom mu teg ko fa tàllal loxo sëñ Abdoulaye ñaanal ko mu dem sëñ Bas ne ma sëñ nee na sëñ Abdoulaye ne ma nañ jàll suñu waxtaan bi mais ñuy waxtaan ba mu yàgg nee mën ma ne ko ah sëñ bi keesu sëñ Saliou Dia doo ko seet ma ne ko mat kenn xamul mu ne ma man maa dem jëli kees gi andi ko ci kanamu sëñ Abdoulaye mais biñ ko ubbee ñu woo ñu koy wàññi quarante million la ko jox keroog te xam yàlla gis nga sëñ muy jàngalee jëf nëbb jëf àgg fa nga bëgg kenn du ko xam ñun nag eh, sëñ bi dañuy sasa joxe ñaari junni ci sëñ Tuubaa li ko sëñ Tuubaa defal te wanew ko mu joxe ñaari junni du bëgg rey nit ñi Hum? Cotidiano